maa ngi lay nuyu euh, tey ñu ñëw ci tiis boo xamante ne dal na monde làmb yépp muy génn àdduna booy booy bambara euh, nan nga ko yëgee ak ak ak ak num la def. waaw jërëjëf moom fils xanaa di ñaanal wasaare euh, yàlla boole ko ci site yi ëpp barke yàlla tamit boole leen ba ngeen mën a liggéey en synergie ba raw site yu bari tey nag bés bi bés bu tiis la. mais bésu sant yàlla la aussi parce que yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat waaye Boy Bambara du du nit koo xam ne ko yàqu la ndax li mu représenté ci Sénégal Boy Bambara a été plusieurs fois champion d'Afrique Boy Bambara a plusieurs fois représenté le Sénégal indi ay médailles Boy Bambara détenteur plusieurs drapeaux la drapeau Makhari Thiam drapeau euh, Gabar Ndoye ak yeneen i làmb yoo xam ne moom moo mu yoroon seeni drapeau kon booy Bambara vraiment euh, làmb ñàkkati na ñàkkati na parce que koo xam ne tu as toujours représenté le Sénégal indi ay médailles dem ba war a dem à la retraite daal di créer sa école école boobu créer ñoom Tafa booy Bambara ak ñoom caatak ak xale yu bare yoo xam ni euh, fàtte naa sax seen i tur mais ba tey euh, li mu liggéey daal en tout cas pour làmb ba léegi produit yooyu mi ngi fi des. fi mu nekkee li ñuy wax mooy xanaa xalaat peut-être état lu mel ni ministre des sports am loo xam ne de il faut ñu defal ko ko mu marqué kéem parce que moom Boy Bambara monument la foo war a nekk loo xam ne dañ ko koy defal loo xam ne dootul dootul jeexati waaw parce que il a toujours représenté la Sénégal kon nag xanaa di ñaan yàlla rek fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge et puis école am bi mu fi bàyyi comme ni ko président Sarr bëggee woon tey ji moom dem na mais école bi tey ba léegi mi ngi fonctionné administration bi dina ko ne dox sportivement xale yi dinañ ko ne di ne kon li mu fi bàyyi dootul ti waaw. jërëjëf jërëjëf.